et puis juuti bi ñuy laaj muy marchand ambulant ku fixe ku fixe lépp dañ la ko tax dañ ne kuy jaay rek war nga pàccal te boo leen di ñëwee di dagg ticket da nga ñu dagg ticket bi li muy jar waaye ticket bi jar ñaar fukk ak juróom ñëw contrôle la fekk nga joxe sa ñaar fukk ba pare bu ñëw ne la da ngay dagg ticket te boo bañ a dagg ticket bi suba la ndax do la xam xaalis boobu fu mu jëm boo jaayee yow moy participer nga ci maire bi léegi su maire bi ñëwé war jël ay poubelle wala war waye bo ñëwé rek bu ñëw nga neexal ko wala jàppal ci fukki dëgg ton do ko def loolu tamit rafetlu nañ ko loolu dañoo bëgg seen association bi bàyyi ci xel. Euh, am na lu ma ci wax sax ndax damaa tëkki woon rek dañ maa woo Côte d'Ivoire ne ma joxe 5000 francs ñu joxe kii dama ne maire yi santaanewul loolu yëguñu bi koy def xamuñu bi koy def man ba ma nekkee Côte d'Ivoire sax dama ne ma yónni police mu jàpp mu gën a gàtt parce que am na loo xam ne da ngay ñëw jënd kër kër goo xam ne awul këy ñu jaay la kër nga topp ci yéeg police bi. dañ leen nax boo ñëwee ñëwee la. buñu waxé ñu né ah wa mairie bi ko wax wala préfet dafa pour léral lan dafa am ku gagné marché bu mag bi war nañ fa def eh, eh, parking fu auto yi di garé war nañ fa mëna a yaatal dafa ay cantine yu ndaw yi nga xam koy def ndax ñun seet nañu fi da nga gis koy jaay muy commerçant yu mag yor sa boutique am lo génn ci biti lu bare bare bare xatal am na ñoo xam sax bu ñu defaree ba dañuy jël aw fas yew fi buntu bi loolu yëpp gis nañ ay cantine defar ay cantine dugal marchand ambulant yi boo dugalee ñooñu ba ñu mais nit ki dafay mbokkam yenn saa yi nga woo sa mbokk ne la ay ñun kat am nañu place jéem la ñëw yooyu keneen ñëw keneen ñëw noonu lay def marchand ambulant pour ngi jëlee ko fii ci réew mi mënta ne waaye nag il faut ñoom seen bopp ñu organiser wu xam li ñuy war a liggéey ni ñu mën leen ak lii

bu ñu demee kanam ñu miinante gaañu te man damay romb mais ñooñu ñu ñu ngi ciy suñu bët dañuy wax nit ñi amuñu kii nañ dàq ñu jël ñeneen di jaay parce que nag loolu la aussi loolu xam na parce que bu ñu comparé suñu bopp ak français yooyu parce que tolloo ko ku jaay ba jot def ko ci ko mais buñ mu parce que dañ ko wax ak pendant des mois sensibiliser nga far dugal ci kii bi mais bon ñu ngi sant ndax li li gën a wóor mooy. bu yàlla defalee nag boobu nga jël ndox nga ubbi ndax ngeen gis ñëpp ñu ay manque de sédiment immeuble moom lay wax. kay parce que li muy def daf koo fonk def ci sutura lépp lu mu am nga xam ne lii moo tax ma am jaaroo picc bi ñuy dégg. dama xam ne lii moo ko def lii mu am kon nag lii ngeen. di ko def

wan nag ñu ngi leen di ñaaxaat ah di leen sant vraiment li ngeen di def ngeen continuer ko maire yi boobu bu danañ ci réunion wax ni ñëw naa fi boo gisee ànd mën naa ànd ak mbooloo damaa bëgg man rek nga ñëw toog parce que li ngeen wax bëgg doyul ngeen ñëw maire audience léegi dama leen ubbil sama bopp wala ñaari audience ñu may leen ngeen ñëw toog loo leen gis mun ñu waxante ko parce que ay doomu aadama rek lañu dañuy juum te dañuy def ay erreur ñu ngi leen di gërëm ñëpp di leen waaw parce que bi mu tawee ndox mi fa la doon dugg waaw léegi dañu bugg ñu ko rek loolu rek moo nekkoon message bi jërëjëf. bismillah assalamualaikum, man la Mouhamed presiden président union des petits commerçants et marchands Amila, di marché central di département Wow, ngeen santiala. doléances euh, doléances yi lan la est waaw ah mu ñëw ñuy liggéey mu teg ci bëtam te loolu sant yàlla si ñun kon loolu dañ ciy kontaan te jëfin mu jëf nii suñu xol sedd na kon daal sa dëgg-dëgg kontaan nañ ci moom ah, dëgg-dëgg suma xol sedd na guy seddaay boo xam ne sa dëgg-dëgg mënu maa wax waaye danañ gën a waxaat rek doléances yi yi jafe-jafe ambulant yi maire nañ ko xamal ne sonn nañ coono koo xam ne mënuñ ko wax ndax julit am loo xam ne mënu ko wax li man rek mooy jàmbatal ko kilifaam te yoon bi waxoon nañu ne su ngeen amee jafe-jafe bu leen def lu leen lu ñaaw na ngeen dem fa ngeen ko war a jàmbatee ngeen jàmbatee ko fa kon nag ñun suñ ko ñëwee jàmbat ci moom war nañ ko fa jàmbatee suñu diine mooy sant mooy ASP yi dañuy deflante ak ñoom jëf joo xam ne dëgg-dëgg lépp mënuñ ko wax wax naa loolu lépp duñ ko waxee fii waaw waaw mu nga yaa lañ koy waxee waaye daal bëgg nañ ñu organiser ñu ñun nag mënuñ organiser suñu bopp ba poubelle yi ñu jënd nii mënuñ ko organiser ñu mën rek defar ko def suñ tur moom mu boole ñu ASP ñu ànd ñoom liggéey ñu ñu année loo masa ambulant yi ba xam ne suñu toogee fii danañ mën a liggéey ñu marqué ko jël suñu poubelle teg seen kanam képp koo xam ne bale nga ba ba ba mu set nga def si biir ndax bëggu ñoo bale tamit bàyyi fi nii suba ñu joxe mbay mi ci digg tali bi amul benn njëriñ suuf si ne ci digg tali bi katar plan moo fi mën a jëlee lol ñu koy sakku or bi dili ci canal yi fat yi nañu boole caterpillar mu xossal ñu lepp ut camion sotti ko ci match bi set ñu fexe uti mast ay boros ndax jox nañu xaalis xaalis bi ñu jox ñu dimbalé ñu ko ay balé lañ koy jëndé jëndi popel doli ci ñun bëgguñ dara ci lén la dul dëkk bi jak ñun lol lañ tax a bala yi ut dara def ci suñu kees dañuy fexé défar marché bi ñu bëggu ñaat téeméeri popel lañ bëgg ñaat téeméeri popel ba ñaat téeméer lañ bëgg ñun lu ñu wax duñ jëf duñ wax bàyyi jëf dañuy jëf luñu jox ni mu ngi ni duma ko nëbbu jox nañu ndimbal nimbal gii dañuy jëndi poubelle dem Dakar jëndi ay bale boros marché bi lañ bëgg muus tali bi set wecc tali bu bees la ñuy talil te tali sañjeem la mu ngi koy def kon nag dañoo taxaw sensibiliser nit ñi woo nañ préfet mu jàppale suñu meer ñu ko jàppale jàppale suñu jàppale maire jàppale nañu lu ñu mën a jàppale nag mooy ñu bàyyi ñu ASP yi suñuy waxtaanee ci maire lu ñuy waxtaanee ci marché bi ñu ci boole lépp lu ñuy def ci dëkk ci boole marché bi lépp luñ ci dugal dinañ ko yëg

venir nettoyer le marché. Bon, j'ai été partout, mais c'est la première fois que je vois ça. Donc, je ne fais que les remercier et les encourager davantage. Parce que c'est un travail que nous devons faire, nous, de la mairie. Mais vous savez, chaque fois que la mairie, euh, le matin, on nettoie, le soir, on dirait qu'on n'a rien fait. Maintenant, c'est pour sensibiliser euh, toutes ces bonnes volontés, pour qu'aujourd'hui, qu'ils savent que le marché, chez leur marché, c'est le marché de tout le monde, et que nous les encourageons davantage à, aller de l'avant. Et nous en profitons aussi pour, euh, remercier tous ceux qui ont mis, la main dessus, que ce soit nos adversaires politiques, que ce soit les gens qui sont de, bonne volonté qui sont là. Je ne vais pas citer de nom, mais euh, on a vu euh, leur travail, leur participation. Voilà ce qu'on appelle la participation responsable. Parce que Mour n'appartient pas à Fallou seulement, mais ça appartient à tout le monde. Donc il faut que tout le monde s'y mette pour que notre marché soit très propre. Mais cela dit qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser d'œufs. Bon, ouais, bon, on est en train de faire des routes. Si Falusila ne faisait pas de route, les gens vont dire que Falusila n'a pas travaillé. Mais maintenant, on est en train de faire des routes partout au, au niveau de Mour. Mais qu'on nous laisse le temps de faire ces routes. Mais après, ces routes seront éclairées il y aura de l'assainissement, des drainages d'eau et tout. Mais les gens se font applaudir après. Mais pour le moment, ils ne peuvent pas applaudir parce qu'il y a des, euh, quelques, euh, quelques problèmes. Bon, c'est ça, mais c'est normal, hein, c'est normal. Pour faire des routes, il faut que les gens se déplacent. Mais c'est ça, mais après, <laughs> mais après, on va les organiser. Bon, ils vont travailler, ça, ça n'a pas de problème. Dernière question, il y a des gens qui circulent euh, dans le marché pour demander aux commerçants de leur donner de l'argent, à des plans. Est-ce que bon, ça vient de la Bon, non, non, ça, je l'ai dit tout à l'heure la mairie n'a mandaté aucune personne pour demander quoi que ce soit aux commerçants ni aux, ambulants. Ça, c'est très clair. Hein. Ça, c'est de l'arnaque. Si on vous demande de l'argent, refusez. Et puis signalez le gars qui vous demande de l'argent et on le met en prison. C'est aussi simple que ça. marchand ambulant marché ak la fa ne salté na la nii sax ay bot lañuy sol ay bot parce que non le marché bu mel maire yi ba day liggéey ba bëgg dé mais chaque fois affaire ba gëna changer té nak buñu toggé ñu toogee ba marchand ambulant yi ñi nga xam ni ñoom jaay fi jóg seen bop jënd seen poubelle wu andi seen chariot and ak maire bi ñu liggéey pour jëlee fi mbalit mi koku dama cee kontaan motax ma ñëwul sama bop personnellement pour remercier leen and ak ñom ci loolu ñuy wax li ci dess nak moy am na ñuy wër ci dëkk bi di leen laaj ay sin 5000 ki ay 10 000 francs di wax ni ay ay plan la ñu yor dañ leen wutal fa leen santuñu ko kenn laajuñu loo kenn dara dama bëgg mu leer ci bopp nit ñi ku ci joxe sa xaalis nag yaa ko def waaye ñun santuñu kenn dara li ñuy def ñun danañ ko def te bu ñu paree danañ woo ambulants yi woo waa UNACOIS taxaw ne leen lii la ñuy def noo leen ko gisee ñu partagé ko ak ñoom. parce que ñun mënuñoo defar ay cantine wala ñu defar ay magasin te waxtaanuñu ci ak marchand ambulant yi wala euh, commerçant yi loolu moom mënta ne bon nag nañu am seen fulay bopp ku leen laaj xaalis ñu xam ne lii maire bi bokk ci préfet bokku ci kenn santaane wu ko. dernière question tey ci benn rajo ne euh, waaw xam nga ñuy wax Fallou laa ngi gas dëkk bi rek mënatuñoo liggéey mais gas ah kuy gas pour defar ay tali kay maa nañ ko bàyyi mu defar nag parce que bu Fallou la toogee defarul dara ñu ne Fallou Sylla def fi dara léegi bu ñu toogee di defar ay tali ñu ne li ñu gas dafa bari dañoo war a gas benn fii gis nga ñuy liggéey dañoo signé ak ñoom ay contrat contrat bi nangam ci weer la bu ñu paree dañuy dem seen yoon du marché bi rek la ñuy defar dañu ne nañu commencé ci marché bi defar ko ba mu pare ñu dugg ci quartier yi boo ko xoolee fan yi ñu ngi natt quartier yi ay Grand mbuur ay ay fle ñu ngi koy waxati jàmm gën lépp ñu ngi koy defar dañoo bëgg dëkk bi jëm kanam tey ñu ngi ciy gërëm président de la république ndax président la république moo ñu indil promoville mu ñun ñu signé ko ak moom mu jàppale ñu pour ñu defar dëkk bi ndax ñëpp xam nañu ay tali maire yi mënu koo defar maire yi day participer état bi jàpp ci état bi nag moo jàpp bon ñu on on en profite pour remercier le président de la république jàpp gi mu jàpp te ñun ñëpp nag ñu jéem a jàpp ci dëkk bi parce que dëkk bi ñun ñoo ko moom bu saltee ñun la salteel bu rafetee ñu la rafetal.